asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah siyaar naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam te di leen jox seen wàccuwaay di naan dal leen jàmm dalandoo jàmm amadoo jàmm si barki Seydina Muhammad fas yéene tàmbalee waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulilahi rabbil alamin comme nu koy defee saa su nekk rek naan leen sama gaay excusez-moi le combat continue le ñaxtu général continue et le laajte universel est toujours d'actualité quoi waaye pareegu noo bàyyi quoi léegi nag moom comme nu ma koy waxee rek affaire yi moom daa mel ni footballu gumba quoi gars yi foog nu ut benn borñu wala nu ut koo xam ne day def télépathie quoi di def ak science science pathique wala xaw ma lan kuy mën a arbitrer mën a téye teg yi xam nga teg yi moom su nu amul ku ko mën a téye moom Je ragal game bi jeex équipe bi quoi jaay doole bi du dem xam nga duma len nangu nangu bi nangu comme rek quand je marche souvent dans le Facebook je me balade souvent dans le Facebook je fais ma petite ronde ronde matinale wala ma ronde d'après-midi xam nga di le petit dox le nouveau les pages là allez voir les les les les, Amdi je me retrouve à voir certaines publications et certains waxtaan quoi mais damay romb yenn gars yi nu des fa qui nous wax yenn wax yoo xam damay toog damay déglu dama naa wow gars il n'y on a notre problème et comme nous m'en pourquoi le Sénégal ne va pas s'arranger nous nageons dans un mensonge nous dormons dans un mensonge profond Baye nous sommes dans un mensonge que nous-mêmes qui disons soi-disant aller se battre pour quelque chose que nous ne croyons même pas à la réalité. Nous sommes dans un mensonge en train de dormir. y a des activistes ils vont se reconnaître ces activistes là vous allez vous reconnaître autant que vous êtes vous qui êtes dans les réseaux sociaux soi-disant que vous vous battez pour le pays que vous vous battez pour un changement, mais que vous n'arrivez même pas à, mettre vos égaux de côté. Vous n'arrivez pas à mettre vos égaux de côté. Que vous voulez maintenant profiter sur ce combat pour essayer de montrer vos ailes ou essayer de montrer vos choses. Je vous dis à un moment, c'est à nous taper sur le tympan. Billahi vous nous emmerdez on s'en fout bel et bien de vos personnalités C'est seeni C'est ni affaire DJ ngeen Il y a un yaa de ces activistes yuy ñoddi ay affaire de superstar wala ay affaire de up personnalité wala ay affaire de up view wala on ne sait pas c'est quoi qu'ils essayent de se montrer wala vous nous emmerdez soyez un peu cohérent sur ce que vous dites quoi da ngay dem ba da ngay sentir gars si seen combat du lay échec du lay opposé ou parce que beaucoup ont ay idée mais come on hein come on si vous n'arrivez pas à partager les mêmes idées vous n'arrivez pas à partager les mêmes idées vous ne devez pas partager les mêmes combats c'est ça le truc si vous n'arrivez pas à partager les mêmes idées ne cherchez même pas à partager le même combat parce que vous perdez votre temps vous perdez votre temps léegi nag sama gaay dafa am affaire yoo xam ne ni ko mooy loolu maa ngi siy romb di gis ay yenn activité naan di di photo comme Baye Fall di for génne ay foto sa sa sa sa sa sa sa vaurien la sa vaurien la nee naa la kooku di tudd turam chaque jour sa daf may um sa vaurien kooku noonu ñëpp xam nañ ko borom moustache boobu noonu sàcc 89 hectares yi si ah, parce que Pape a dit Pape mais nique Pape nous on parle du Sénégal nit ni di nan Pape Alé a dit Pape Alé waaw gisuñu wa nous gis Macky Sall si sàcc yéen tamit da gis fu Macky Sall hein? est-ce que vous avez vu là où Macky a volé l'argent du pays est-ce que vous avez vu fu Macky Sall sàccee contraire comme nous tax nous kay nous ni dit, paradoxal day am heure bu ngeen koy bëgg a daganal am fu muy valable am foo xam ne foofu du fa valable quoi foofu vous voulez venir amener de la merde aux gens quoi ah non wan nu preuve Baye Fall su dee da ngeen di bëgg a dem dàq ji si sunuy neuf hectares dooma doomu xaraam bi rawale mu wóor ñëpp leete c'est pas la première fois te suñ ko toppee génnee si yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen moom ay moroomam tout ce bordel qui passe doomu xaraam ñëw tey parce qu'ils cherchent, je ne sais pas, des protections derrière le mensonge, ou alors ils cherchent quelque part à se cacher, d'afficher une photo pour d'emmerder les gens, quoi. Ouais, oh, c'est bye, bye, bye, c'est un voleur. C'est un voleur. Maintenant, qui veut prouver la, la, la libération, qui veut prouver que ça, ouais, est blanc, nous, nous, nous blanchir, ni maki. Parce que maki, tami, gisoo len ko Moussa Tien. Maki, balé, gisoo len ko. fi nek. Nous, comme bok, no, no, wax l'air, quoi. na wax gi leer bu leen fi nekk di emmerde nit ñi parce que Pape Alé toog na am na lu muy lijjanti di wax di lijjanti ay bagaasam duul fi duulam rek génn ñëpp wal na see waar moom na nu génneel kay fu mu dem ba xool te gisu fa kër te kii kay te gisu fa tur na ko exposé na ko war maanaam gisu fa tur na ko war a tur ñu fa nekk nu lijjanti ñooñu lu muy làq ah Pape Alé Niang c'est un menteur day dafa joteeg nguur di xool fu muy làqatu léegi nag làqatul làqatul si ginnaaw citoyen yi moo gën a wóor ngay làqatu si ay ginnaaw taliban taliban di gëmunu dara loolu laa bëgg pour mu clair gis naa nag ay genre activiste yoo xam ne koy parce que ils ont des comptes à rendre ak ñu ils veulent maintenant essayer de créer une mentalité wala une affaire boo xam ne ni que yéen wax lu man man si biti man nekkuma si man bokkuma si wala affaire ni pour essayer de se créer la sympathie yooyu fi nit da ngay dëggu nit da ngay gëm sa bopp ma gën a nit mooy markatu taat quoi markatu taat bi jéem a ruisu si taatu nit ñi di expliquer ni da ngay gëm lu nga doon waaye mais come on what the fuck ya de ces gens yoo xam ne kenn comprendreul kenn comprendreul lu ñuy lijjanti lan laak laka la bàyyi faal yéen bàyyi vous voulez vous voulez vous chercher une route pour pour faire échapper un un un voleur bàyyi bas Abdou Khadre sàcc la nit ñi bëgg ko nit ñi bañ ko nangu ko c'est un voleur lu tax moom du wax yéen yéen a koy waxal yéenay jël baakaaram yéen ñi ubbi seen làmmiñ di wax yéenay jël baakaaram bàyyi faal ñëw di expliquer ay affaire yu kii waaye ten kooku kooku duñ ko man man man faalewu ma benn nit buy jug di wax ay affaire am si ay affaire de ça no man lan laa faale c'est tout le peuple en même temps lu nit ñi waxandoo laa faale lu nit ñi di lijjati la faale benn picc mënut a tufli fu taay téeméeru nit tufli ba muur ko c'est impossible yow benn picc kese nga nga bëgg wax teggi fi lu waay faal dama nga noppale ku Nous sommes avec la majorité, quoi. Les gens là, nous nous euh, raconter qu'est-ce qu'ils veulent parler ou quoi là. C'est leur problème. suis tamit gis ben tamit suis parce que YouTube là, ko gisee nit ñi ñoo jël vidéo nous, les légende daa tech, hein? nous, affaire nous, islamo-politicien gars la xaw nan jaañ sa is sa islamo xaar ma la ma pose pause euh abib job, job job, job nga ne man ma andil la ay preuve man preuve yu ma lay andil ma lu la andil mom lañ tek ci table bi bo ba léegi di wax santakat dimanche ngeen di yuxu ngeen di yuxu yooyu léegi mbilli gu nu wax si biir preuve gi moom si boppam ñemewul wax yéen yéen a koy waxal da ngeen a mus gis nit ku nu jàpp tribunal à part avocat waa mbedd gi ñëw taxaw ne duñ koy waxal Sénégal da am si yéen si yéen kooku andiwul avocat am andiwul ko yéen ñëpp yéen a transformé wu nekk ay avocat di ko waxal comme ba kay yéen mii di dem ba taxaw di di défendre nit koo xam ne ñëpp accusé nañ ko a wala andi preuve lu tax ngeen bëgg a toujours jouer au con sur les léegi nag comme que ne ngeen preuve amul bu nu saaga kenn si dëkk bi bu nu dàqee ci kenn si dëkk bi Macky Sall sàccul kenn kenn gisu andi leen preuve Ablaye Wade bu ngeen di wax ak Karim Wade boobu ba léegi ñoo ngi wax ana preuve yi andi leen preuve waxa fi nekk dàq ji bu sa boobu ba léegi gars yi génneegu leen preuve su dossier génnee dossier dugg comme boog nag na ngeen cohérent na ngeen cohérent quoi point barre kumba am ndey kumba ñàkk ndey bi mooy loolu léegi comme nu doon waxee Mon romb cette vidéo YouTube bi sa jaañeen jaañ jaañ comme ce politicien ou, xaw politicien ou sociologue la comme. il a fait sa vidéo il a parlé nit ñee nit ñee légende def sur sama tour loolu mom, le concerne je vais attendre le jour que mom il ose poser ses couilles comme moi porter ses couilles arrêter le gaaruwaale nit ku baax du surtout ma borom do doo gaaruwaale soy wax nga gëm lu ngay wax nga wolu sa bop nga xam ni ko lu ngay wax deug la so kay wax dang kay wax mu leer ku si meuna jëriñu jëriñu ku ci gis leneen gis si leneen man koku non da na ko setan si départ man nena duma kompleks, nit ku complexe c'est reuyuma dama ko don setan di deug mais bama démé ba xamni kay n'est pas cohérent parce que gëmul lu mi wax la noppalé ku ndank dem tok nekuma fi di vilipande nekuma fi di lijeenti nekkuma fii sax di xoolal occupé wu parce que ce gars moom si bopom il est il se perd dans son esprit il se perd dans sa tête waxu yalla du lu ñuy négocier waxu yalla du lu ñuy tourner waxu yalla du lu ñuy nana nii nana naa léegi nag moom keroog ay affaire am teg nee na. Abonnez-vous à la chaîne qui vous ressemble et qui vous correspond. Nyanjo Mega Vision, l'œil du delta du Salon.